bàyyi nañu seen soxla Nous pendant plusieurs tours d'ordre. nous nous assisté Mais commencé à mettre El jambe Amadou sang. ancien gardien maître Djibi Diallo maître Ganade, du cabinet Wade maître ABF maître Fa maître Doudou Ndoye ginnaaw gi maître Cissé ñëw na yokku ci maître Wele ñëw na yokku ci ñoom ñëpp ñu ñëw taxaw ngir jàppale waaye may beral loolu may sant suma njaboot di sant suma sox parce que bi ñu ma bàyyee sax samay mbokk damaa damaa ñëw fekk leen si kër am ku ne ma mais bu gàtt xoolal doomu ñu ngi amul kenn ku dul yow bàyyi li ngay def bàyyi politique

ñu ngi jaamante di seet lu ma soxla lu ma bëgg ba ci xaaju guddi kon maa ngi koy remercier bu baax moom Wally Seck ma ñëw rek ci li ngeen déggee coow parce que nag boobaa léegi gars yi dañuy métti ba nga naan ma naan yaay mensagem de princípio.